asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu football club bi nga xam ne jamono bi kii di Thiago Silva dafa dal di tàggoo ci ngoon tey jile di xam le ne kat dafay jógee foofule ba saison bi jeexe waxoon nañu leen ko contrat ba day jeex te nag tegaluñ ko li aju ci mbirum prolongation jamono bi nag dal dinay tàggoo ak li nga xamante ne mooy fans yi xamal ne daal jamono bi mu ngi ci yoonu dem waaye nag tàggoo bu dul tàggoo la ndax kat moom yéeneem mooy dal di del dellusiwaat ci équipe bi mu am na tàggoo boo xam ne boo ko defee mooy ne yow moom da dem yaa ngi dem forever waaye nag moom yéenam loolu yéenam mooy dal di dellusiwaat ci équipe bi liggéey ak ñoom ndax équipe la boo xam ne kat léegi ci xolam la nekk ndax bu ngeen bàyyi xel at yi xam ne dal na ko fay def am na trophée yoo xam ne dal na ko fay gagné na fa Ligue des champions na fa li nga moom la ñuy wax super coupe d'Europe gagné na fa tam li nga ne mooy bu nag bi ko ci gën a neex mooy compétition bi gën a ci àdduna bi boo xamante ne maanaam képp kuy professionnel bëgg nga ko gagné voilà nee na loolu yëpp dal na koy am ak bi de Chelsea ne ci xolam la nekk te yéenam mooy balaa yàgg mu dal di dellusiwaat ak équipe boobule dal di liggéey ak te loolu sax mën nañu jàpp ne na tàmbali ndax xam ngeen Thiago Silva jamono bi mu ngi jàng li nga xam ne mooy méccum entraîneur saison ren sax daal dina koy jëfandikoo ay yoon yoon ngir mën a communiquer ak li nga xamante ne mooy joueurs yi nga xamante ne ay xale lañu voilà moom kii di Thiago Silva bu ngeen bàyyi xel mu ngi def li nga xam ne mooy licence UEFA B jamono bi boobu la nekk di déng def ci jamono yi lée loolu mu ngi amal ci jamono bi ak ñi ne ci xol la nekk tey ji daal amal li nga xam ne mooy tàggoo boobu waaye tàggoo bu dul tàggoo a ndax yéene mooy ne na di dellusiwaat liggéey ak équipe boobule ki nga xam ne mooy Pape Gueye l'international sénégalais moom nag xam ngeen démb moo joxoon ñi di waa Marseille ndam ndax bit bi nga xam ne daal dina koy dugal contre Lens gannaaw bu match na kàddu yu mu jotoon yëkkati mu jëm ci avenir am na ne li nga ne moo ay ci contrat am nag ak équipe si waaye nag bi ko laajee lu jëm ci prolongation ak équipe bi di Olympique Marseille li mu a nekk la mu ne loolu a nekk la waaye nag dafa am ay mbir yu bari yu yoo xam ne mooy tax loolu mën a sotti waaye nag mbir yooyu yëpp daal la ci mooy mu nekk koo xamante ni daal dafay am temps de jeu mu a xam ne jamono bi mu ngi koy sàkku maanaam ñu jox ko temps de jeu bu doy bi nga xam ne dégg nga maam yette woon na ko ñaareel bi bi nekk na loo xam ne itam dal na ko yitteel xam nga ren ji dafa dal di dund yu métti métti yoo xam ne dafa mel ni dañ ko xeeb yii nekk na loo xam ne xëy na bokk na li tax mu dal di gis boppam moo tax ne ne yi nga xam ne daal mooy dajaloo ba tax mu war a prolonger contrat am mu ne bari nañu waaye ñaar yi la ci yiital mooy mu am temps de jeu bu doy koy jox ci respecté ko en tant important mu ne yii daal su ko amee mu amul problème mën na des ak ñi di waa Olympique Marseille ñu fàttali leen am na déggoo ak équipe bi nga xam ne mooy Villarreal waaye nag lu mën a nekk la waaye yi mu teg conditions yi maanaam xëy na dirigeant yi dégg nañu ko bu ñu bëggee mu daal di des dañuy delluwaat ak Chelsea Football Club bi nga xam ne dañoo am ay retour tey jii ci li nga xam ne mooy tàggatu yi ki nga xam ne taxaw tay bi maanaam ab pàcc dal la ci tagatu kon ki nga xamne moy Colwill ak ki nga xamne moy rhys James Christopher Nkunku voilà ba ci ki di Raheem Sterling ñom ñetti ñi wala ñom ñeenti ñi lay li nga xamne moy benn patch ci entraînement lañu amal maanaam li ñu tuddé complete training manam ngir wara mëna bokk ci li nga xamne moy groupe bi wara tew xañ na ngir jouer ci match yi amana bala ñu yegg ci weekend bi ak match yi nga xamne ñu war nañu ko amal mana na fekk ñu pare xibaar bi neex dal moy warna ci waat na ak équipe bobu di Chelsea Football Club Barça tay ji dafa am ndam lu am solo match bi doon am digënté mak Valence match bu metti won sax ndax xam ngeen ne Barça sans Valence moom mosul yomb benn yoon équipe la boo xam ne ay xale fa nekk waa Valence gone yu sawar waaye nag tey ji mel ni moom tey seen affaire doxul ndax kat gannaaw bi ñu amee ndotteel gu am solo voilà Barça sax ñoo njëkk dugal ci ñaari bal ci benn la dal di jeexale li nga xam ne mooy premier bi bit bi dal di dugal koy amal gannaaw bi mu doon def li nga xam ne mooy benn geste technique voilà daf bëggoon flick bal bi voilà combat ngir tëbal ki nga xamante mooy Hugo Doro waaye daal mu dal di luppe li nga xam ne mooy geste boobu mu bëggoon def loolu nag moo dal di indi li nga xam ne mooy bit bi Hugo Doro dal di marqué li nga xam ne mooy bit bi njëkk pour Valence beneen bit bi nag mu ngi ñëw ci benn penalty boo xam ne kii di Arojo moo daaneel joueur bi ñuy wax Peta loolu nag ci la di waa Valence dal di dugal beneen bit muy ñaari bal ci benn ñu jàpp ne xëy na war nañu mën a am xam ne mooy match nul waaye Barça da moy Lamine Yamal bi mu déng mam contrôler ballon bi mom digënté ma gardien bi gardien bi dafa daw génn wala tassé ak mom ci biti ci biti surface bi fofu nak bal bi dal di dal ci loxom ta xam ngeen lolu mom dafa nek lo xamne duñ ko balé carton rouge la biñu xolé ci VAR bi ci lañ ko dal di déng mam génné ci joganté gi kon ñu dal di déssé 10 10 yoy nak sonoron nañu lol Barça lata Barça di dabé bay duggal li nga xamne moy ñettelu bit ba ci ñentel ndax ki nga xamne moy Lewandowski mom mo duggal ñetti bali ci dess yépp 49e wala ci la marqué li nga xamne moy benn bit bi gannaaw bi nga xamé nak dem nañu ba ci 92 e mom Lewandowski dal daal di dugalaat beneen bi ñëwee nag ba ci li nga xam ne mooy maanaam ci temps additionnel bi foofu nag la daal di complété lu aju ci li nga xam ne mooy hat-trick kon triplé la maye tey jii moom Robert Lewandowski loolu nag may ko jamono bi mu am na seize wax ne voilà li nga xam ne moom la ko meilleur buteur bi rawee mooy ñetti bal voilà kooku mu ngi am lu toll ci dix-neuf buts nañ ñëw léegi kon Lewandowski ci trente matchs yu mu joué ci li nga xam ne mooy ci match bi nga xam ne kon dal dina koy am ci diggante Barça ak Valence kon bu ñu xoolee li nga xam ne mooy classement bi tax bi foofu la ci Espagne ni la dal di tëddee ki jiitu ci li nga xam ne moom li muy dugal dafa soree loolu donte ne dub attaquant waaye ndorteel gi moom doon na marqué but yu bëree bëri benn but képp jamono bi moo dox digganteem ak kii di Lewandowski mën na ko jot ndax Lewandowski temps mel ne ni ko commencé jël forme ñu xool li ñëw ci kanam kon Barça ndam loolu nga xam ne daal dina koy am daal dinay dégg maam tegaat tankam ci li nga xamne moy mooy place bi manam jël na ñaareelu place bi classement La Liga nek ci kanam ñi di wa Girona kon Real Madrid mu ngi ci 84 points ñi di wa Barcelone am 73 kon 11 points mu ngi fa ba léegi Girona mu ngi ci 71 points leneen lo xamne ne xibaar la ba tay moy Barça dal dinay qualifier ci li nga xamne moy Ligue des Champions bi ni ki déwén loolu leer na tey ji gannaaw victoire bi nga xamne amna am ko ci kanam ñi di wa Valence lolou may na ko mu am tikem kon déwén dina jouer ci Ligue des Champions 11 équipes yi nga xamne qualifier na ci Ligue des Champions Barça ci bokk 11 équipes yi nak moy ñi lay ko fi déggul turam rek jote jotagul tikem qualifié gul maanaam Arsenal la Man City Real Madrid Bayer Leverkusen Bayern Munich Inter de Milan Milan AC Paris Saint-Germain PSV Eindhoven Feyenoord ak Barcelone li moy 11 équipes yi nga xamné qualifier nañu bu dee Espagne ñom déjà amagum nañu fa ñaar Angleterre ñom amagum nañ ñom itam ñaari équipes yu qualifier Allemagne amagum nañu ñaar fele ci Italie am nañu ñaar Paris wala moy benn bo xamné jamono bi mo qualifier ci France PSV ak Feyenoord moy ñaari équipe pour ñi di wa Hollande lu moy lolu ñi di wa Leicester City bi nga xamné fan yi rek lañu doon wax né dégg maam dañoo monter ci li nga xamné moy English Premier League bi tay ji jëna ñu sax gagné li nga xamné moy championnat ba championship bi jamono bi ñi waa Leicester City ñoo ko daal di gagné kon yematuñu rek ci monté mais ñoom champion loolu nekk tam li xamante ne am na solo lool Leicester City ancien équipe ki nga xam ne mooy Nampalys Mendy ak Boubakary Soumaré voilà jamono bi dañuy dellu ci English Premier League match bi nga xam ne nag war na xew ni ki suba ci wàllum Ligue des champions muy diggante ñi di waa Bayern Munich ak Real Madrid foofu la ca Allianz Arena kayiti xibaar yi xam la nañu ne kat jamono bi Bayern Munich am na ci ay joueurs yoo xam ne wóorul ndax na maanaam ñu ngi entraîné mais nag seen ak wér xam ne mooy Jamal Musiala Musiala daal ne nañu tey ji sax entraîné na waaye daal li nga moo ay ci bokkam ci match bi wóoragul du moom kese waaye ki nga xam la ñuy wax Upamecano moom itam wóorul ndax dana bokk ci match bi De Ligt moom it wóorul ndax dana ci bokk Lemar naka noonu ki nga xam ne mooy Leroy Sané kon juróom lañu ñoo xam ne fi ne nii seen ak bokk ci match boobu dara waragu ci ba ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi Real Madrid nag ñoom tey ji dal nañu entraîné ci li nga xam ne mooy stade boobule voilà di Allianz Arena bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi ki nga xam ne mooy Luka Modric moom dina dal di titulaire ci match boobule xam ngeen temps yëpp bu ngeen bàyyi xel Toni Kroos moo doon far di titulaire ak contre équipe bi di Real Madrid waaye Real Madrid marqué quarante un buts contre équipe bi di Bayern Munich ñetti yoon nag la ñu def li nga xam ne mooy match bit yi nga xam ne marqué nañu ko kenn ku nekk contre moromam kon mel na ni ñi di waa Bayern Munich bu fekkonte wane xëy na yàlla daf leen baaxee ñu door Real Madrid ni ki suba dañuy tolloo lépp lépp la tolloo ay victoire ak but loolu mooy li nga xam ne moo leer voilà kon match boobu suba lay doon mooy doon match bi njëkk ci li nga xam ne mooy demi-finale Ligue des Champions yi ci aller bi mu ngi noonu gars kon looloo fi gënoon fes di wax ngeen wéy di topp Sen Sports 221